monsieur le président maa ngi sukkand maa ngi jël kàddu ci réglement intérieur assemblée nationale bi nga xamante ni moo ma permettre bu débat bi tàmbalee ma jël kàddu sama première wax nag ñu ñëpp ay loi moo ñu tënk ak ay règlement règlement intérieur assemblée nationale dafay am solo ñu di ko appliquer pas select pas select article 51 bi nga xamante ni tey moom la sama collègue député bi wax mi ngi jëm ci immunité parlementaire te boo jëlee article boobu ñu ngi ko tëbbee ci constitution bi article 61 alinéa 2 mais monsieur président assemblée nationale heure bii daaw man mii di wax a yéen nekk surtout sëñ Touba heure bii daaw maa ngi ci kaso bi kenn ko article 51 heure bii daaw laa wax bi ñuy def débat orientation bi c'est débét maa ngi fii prison rëbës kenn appliqué wul article cinquante et un moonte pourtant article cinquante et un mi ngi fi woon monsieur le président sama collègue député ñaar député yi ñu jàpp depuis juróom benn weer ñu nekk crise ci prison bi kenn appliqué wul article cinquante et un te boobu ñu ngi woon si kaso bi ñoom lu tax wuti appliqué ko mais il faut que ñun ñu waxante li am mooy il faut ñu wax ni un débat n'est pas débat sélectif ñun ñëpp dañuy ñaawlu jàpp gi ñu jàpp député yi mais bu fekkee loi moo ñu tënk ay ay règlement bu ñu jàppee député bii bi nga wax bu ñu jàppee député bii doo wax day mel que ni parparloo day am man tëj nañ ma ñaar fukki fan juróom-ñett moom mi wax gisuma ko gisuma keneen gisuma keneen gisuma keneen débat bi li ñor mooy débat orienté si bis lañ wax débat nañ ko continuer bu ñu la sasiré monsieur président pour nga wax ni si affaire député yi su boobaa nga jël sa kàddu nga wax li nga war a wax monsieur le président man mii di wax yow le bii di ñëw lan mu war a atte te ba léegi kenn si sédugul ak di dugg sax mu laal nu cuuraay est-ce que député tax na ñu wax loolu sama ñaari kol député waa PUR yi ñu jàppoon est-ce que tax na député yi wax loolu dama ni il faut que ñu respecter peuple bi respecter sénégalais je vous remercie jërëjëf. voilà le débat continue Bilaliba